di dikk eh, xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi moom ay trente cinq ans jàpp trente cinq ans maximum am na ko sam sëy na ñetti doom bi mu sëyee ba mu ñetti doom léegi dafa divorcé ak jëkkëram yaa may dégg lu baax waaw bi mu bi mu ba ba am ñetti doom dafa divorcé dafa tas léegi moom mu toog kër gi mu ñëw yaa seen yaay parce que ñëw si kër magam bu jigéen nekk fa fi di sëy léegi magam bu jigéen bi am doom yoo xam ne am quinze ans ñi quatorze ans ñi ñoo loolu yooyu daal ay xale lan duñu ay mag mhm. léegi moom am doom magam bu jigéen bi nag fu magam bu jigéen bi demee liggéey moom moom moo fay def ak doom léegi fu fu xale bi toogee bu jàngee ba ñëw da ngay toog si saal bi si néegam jàpp ci awraam bi di si foo ba ku jigéen di foo ba tàmmal xale bu góor bi jigéen di di di foo moom ba tàmmal ko ba tàmmal ko boppam chaque jour ma koy def man man dama ci am lu leer nañ benn léegi nag xaritam moom mu koy nettali benn xaritam bu jigéen naan ko man de xale bu góor bi xale la mais xale bi saay saay mënee nekk affaire yooyu noonu di ko wax mais kooku waxaat ma ko man nag est ce que loolu dëgg la man ma wallahi moom moo ko def léegi man ba ba ma xamee loolu ma def fa laa gën a xam ne kii da koy def dafa jël sama dafa dama dafa commencé xamanteeg man jël sama numéro téléphone ñuy waxtaan mu woo ma benn jour na ma damaa bëgg ñu dajee ma ne ko ah, comme nan ma ñu ñu dajee rek ma daa dajee ak moom ñu toog waxtaan mu ah, dama laa soxla na beneen jour est-ce que mën a ñëw ma ne ko comme nan mu ne naa la wax la léegi ma ñibbee ba sama kër toog mu woo ma moom maire wax man waaw mooy gisee gi ba am ba tas ah, mu ne ma dama laa soxla woon hmm. man man man essay man gën sa mu ne dama laa soxla woon parce que dama bëgg bëgg ñu fekk mën a yow affaire kenn bañ kaa yegg boo bëggee ko mën naa la boo ñëw may wut ay yàpp yooyu di lay ko defaral ngay toog man kay man kay yaa mag yaa mag fuuf mu ne ma loolu dara mais man xam maa tas boobu ba léegi aw ma góor te damay toog sa xel ne si góor xool naa la yow góor nga dinaa xale bu baax nga amoo yow da ngay dem entraîné ba wàccee damay gis nga dem ànd man ko mais ma mais yow man loolu tax maa jóg sono ma ci loolu sono ma ci loolu ma woo xaritam bi ma présenté ko ne ko waxal sa kii mu bàyyi ma wala man dinaa ko indi problème bu mag si ma commencé may jàmm mais da koy dund ak ay doom magam si biir kër gi gi. maanaam jël doomi mag yi di seey ak ñoom. waaw doom moom jigéen la de. waaw gi mooy def noonu xale yu góor yi laa la wax. waaw day bàyyi ba mu jàpp xale bu góor bi di foosi awraam di ko def loo xam ba xale bu góor bi saa yi xale bu jigéen mu gis nga am taat wala nga xaw a woon da xool di xool ba ba moom commencé nag commencé bëgg jigéen moom te xamagul dara moo ko def si xelam. ok yow korog ba nga fa ñëwee dafa meeku loxo dafa toog waxtaan bari mënu ma mais moom su ma ko waatoon téléphone nga déglu ma mën naa ko enregistré ba pare jox la enregistrement loolu rek la may doyee moom loolu rek la may doyee ma mën a ko léegi loolu mënu ma damaa bëgg nga ñëw jox ma sa bopp ba nga doyal man ma xaas laaju maanaam da ma day ñëwaat yow man comme luy luy loolu mënu ma maanaam loo génnee dina mën a ñëwaat ci yow mu ne ko non ah, euh, am na ñoo xam ne sax léegi yaay mhm. dañ ko def métier mhm. parce que jeunes yi may déglu ñi nga xam dañuy am ay góor yoo xam ne dañuy def ay publication ci réseaux sociaux yi di wax ne man góor laa maa ngi am temps de at peut-être loolu sax coach coach bu dee mi ngi dégg de mhm. xam naa dina ci xam dara dañ naan góor laa maa ngi am temps de at euh, euh, maa ngi dëkk bërëb sàngam sama numéro mooy temps ay jeeg laa bëgg waaw waaw quarante cinq ans jëm kaw ku ñëw dinaa la defal lii dinaa la defal laa mën naa lii mën naa laa entraîné naa mën naa sama bopp maanaam métier la. Oh. ñu fay la salaire. dañuy bind dañuy bind kañ. Euh, cent mille francs wala soixante quinze mille francs oh. bind ni temps may jox pour loolu ak loolu léegi gis nañ ñu bari di ko def ay publication ci Facebook xam naa ay faux compte lay doon mais ñi ngi koy def di attirer mag ñi di leen laaj xaalis am ñoo xam ne ngi taxaw ci corniche bi ak feneen ak feneen li may wax jeunes yaa ngi may dégg mm-hmm. dañ koy def di monnayer loolu xaalis ñu leen di fay ñuy séq ak ño xamni seeni moroomu nday lañu léegi amna xalé goor yu góor yoo xam dañ nan lan man de xalé doyna doy mag ñi rek parce que mag ñi ñolay jox kat kat jox la liek liek la te do ci sonn do ci sori mm-hmm. booba nag ña nga làq seen ne ko ndaw ci wet ga uh-huh. waye da amna ño xamni mag léegi ñu bari xalé la ñuy sëyal te rusuñu leen sax présenté seen moroomu doom ñu jéggal mën ci ñuy sétane nekkul dañ leen di blâmer wala dara mais dañuy jàngalé wax ni lu am ci réew mi la xam nga nga dem tak ci farataak sunna nga sëyeeg nit ki ci fataak sunna moo gën ak at yu mën a am baax na ak at yu mën a am parce que gis nañ fi alayhi salaatu wasalaam sunna Xadija euh, loolu du problème mais nag di jël xale yi di leen utiliser di leen jox xaalis loolu mm. moo dul yoon faal te loolu moo am ci réew mi tamit ñu wax ko xale yaa ngi sañse mel na leen neex def parfum luxe jëlewuñ ko dara yaay booy ci ay mag lañ ko jëre moo fi am de dëgg la de ndax xëyoo gontoo xëyoo gontoo mën a sañse mm. mën a jënd parfum bu baax mm. ñu ni déetawaay nga mën a yor sa oto boo xamante ne mënoo wax fii laa ko jëlee. Hmm. du salaire du dara. xam nga mantulaay dafa am prétexte yu ñuy jël dama koy wax toujours dañuy def dañuy sukkandiku ci alxuraan ak ci ay eh, wane li li yonent bi wane woon muy ay jaar-jaaram yoo xamante ne rafet na pour ñu naat ko ci moom. mais dañ koy utiliser noo xamante ni en fin de compte nit mën nañu xool sax di ñu xeeb. wala muy xeet suñu diine. waaw wala leneen ak leneen. fekk bindewuñ ko woon noonu waxewuñ ko woon noonu. waaw ba ñuy wax loolu. mariage yooyu ñu doon wax. Mhm. dañ ko doon def te yàlla tax ñi mën a jëlante. Mhm. ñuy sëy sëy boo xamante ni bu mucc ayib la. Mhm. teg fañ la sa loo mag mag mag sa boroom kër mooy sa kilifa. mais léegi demeetul noonu mantulaay. jigéen bu demee bay fay pour yenn actes yi. war nañu toogaat ñu xool fan la ñu toll. waaw war nañ ko xoolaat fan la ñu toll. waaw jigéen nan lay amee ñu baal ma ci kàddu bi benn yàqute boo xamante ni. da ngay dem fay pour am sa bànneexu bopp. fee la nag yaay. waaw ñu bëgg ko. am na moom bañ ko. am na amul am na dafa xew ci réew mi. xew noonu la tudd. xam nga xale góor yaa ngi ci ci réew mi. di jaay seen bopp comme jigéen ñi. Mm-hmm. loolu fee la lu am ci réew mi léegi nag la ñu war a wax mooy ci côté santé xam naa di nga ci ñëw. Mm-hmm. dañ lay war a utal carnet. ñu def comme jigéen ñi. waaw waaw ah, liggéey liggéey la. ñoom góor liggéey la caga yu góor lañu. <laughs> mantu laal nga fu am solo. laal nga fu am solo xam nga lu tax. Mhm, loolay wax boo rombee xale bu jigéen. loolay wax ji bu génn di doxantu parce que dafa tàng. wat na mhm. boppam xëy na am na ndoxu siti wala feebar na wat na boppam wala mu wat boppam moo ko neex. Mhm. solu xale yi ni ñuy soloo jamono jii bu ñu la rombee ramasse la ni la ana sa carte. waaw lu tax bu ñu rombee xale yu góor yi def seen short yi dang wala peew bu danga danga dang def sa booy doole di dox ci mbedd mi duñ la ramas. di màcc waaw dañuy màcc tuñ. waaw dañuy sangoo dañuy sëlmoo saabu carotte boo lambee seen seen poche da nga ciy fekk saabu. carotte ak lèvre rose saabu yii nii mami Babacar di jaay saabu yii nii. ñoo koy gën a mën a jënd. lèvre rose nag. gis nga saabu yii nii mami Babacar jaay man yi may sangoo nii. moom la ñuy sangoo. moom la ñuy sangoo ñoo ko dàq jënd ñooy clientèle bu mag bi. lèvre rose yi de góoma de. mantulaay lèvre rose nga roñ ci sa ay tuñ ba mu weex tàll dem ñu épilé la ah, xaw a xajam tilim tuuti rek tuuti sax ah niin nag xaw a ñaq tilim tuuti xaw a ñaq ah xaw a niin tuuti mais mais mantulaay loo ci mën a dégg mooy xëy na li jig góor jigul jigéen benn hmm. baaxu ci mais li jig góor nag jigul jigéen jigéen nag moom nag wax dëgg yàlla moomul pour su tollee fenn fi dem fay pour am bànneexu boppam jigéen moomu ko te mantulaay bu ñu fàtte ni feebar yaa ngi ni xus nag ci dëkk baax na feebar yi benn jógewu fi bépp feebar boo xamante ne amoon na tur mu nekk ci dëkk bi ñu ko doon ragal démb moo ngi fi jarul ñu koy ñeme tey parce que mi ngi fi na mu daan rayee lay rayee na mu daan yàq yaramu nit lay yàq yaramu nit ba léegi lépp mi ngi fi jël téléphone bi te ñëw 88 628 89 90 ñu bés de allo allo bisimilah bisimilah papa waaw maa ngi jéggalu ñi may dégg ñëpp sekk jéggal nañ la jéggal nañ la ah, boo xam ni mm-hmm. ku bëgg yàlla mm-hmm. ak noo mën a mel mm-hmm. waroo ci bañ a dugg mm-hmm. parce que jàngale